ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na. ami téléspectateurs yi ñu seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen di amati nagam mbégte rek di àndaat ak yéen saa su nekk. di leen wax dal leen ak jàmm ci seen journal de l'arène comme ni ñu koy defee saa su nekk nag lépp loo xam ne rek dafa jógee ci làmb ji dinañ toog fii daal di ko waxtaanee baaxee leen ko waaye nag à chaque fois rek ci plateau bi nii lay demee dinaa ci ànd ak sama góor Babacar Babacar nuyu naa la bu baax. maa ngi lay fay amee. Hmm, ci loo nekk. sant borom bi yaa ngi ci jàmm. waaw am naa jàmm bu baax a naa seetu am na luy la nga fii taxaw. dindi la ko waaw ah, dindi la ko. comme yaay sama seen ah. maa leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen wax mhm. si àjjuma ji mhm. ak weeru koor gi ñu nekk ah, di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi mhm. am na solo voilà boog téléspectateur dañuy dem seetaan ni bi daal di dellusiwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum vendredi 23 avril 2021 dañ yow kiñ ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doorete ko yëglikaay bi di suñu lamb nag tey xëtam mu njëkk moom ñoom ci xëy fësal ñaari mbër yoo xam ne ku ci nekk ci ñoom ñaar dégg nga roi des arènes ñoom ñaari mbër tamit maanaam bëri nañu seen biir muy ndaw tey seen borom bul faale ak Balla gay numéro 2 ma nga xam ne nii moom mooy la lion de waay mel ni ki nag yëglikaay ba tey ñoom la xëy fësal lam nu xamal nag ne na daal daa mel ne ki Balla fi mu nekk nii day tànki Tyson daal la topp comme nam doon waxee daal ne tey seen idoolam la ba tey daa mel ni wàccul yoon woowa maanaam Balla daal léegi yëglikaay ba moo seetlu jàpp ne Balla fi mu nekk nii daal sport business ba tey seen doon wax daal daa mel ni nag loola tamit jël na ko féetale ko ca boppam kon daal Balla tànki Mohamed Ndaw tey seen la continuer di ko topp Aziz Ndiaye ma nga xam ne nag moom mooy kilifa ak Balla di lijjanti ay contrat ak lañ koy fay ak yooya la Aziz xëy xam le daal ci yëglikaay bi leer na nañ Aziz ne na fi mu nekk nii moom li ñu soxla moom daal bokk na ci xaalis nu ñu def ba Balla Gaye numéro 2 am ay contrat yu baree baree bari ngir nag man ca am xaalis ngir bu bàyyee lamb du ñee kenn te du sonn loola mooy li nga xam ne ni daal moo leen intéressé waaye ay titre ak yu mel ni noonu loolu moom daa mel ni fi mu nekk nii daal la leen gën a intéressé daal na Balla di ami combat di bëre di xam ne ni moom moo di xaalis moo tax daal mu ngi xam ne fi mu nekk nii boo bëggee dëgg-dëgg Balla gay numéro 2 signé na ak Gaston Mbengue ñetti contrat yoo xam ne yu leer nañ la ñeneen ñoo xam ne nii moom ba Gaston Mbengue signé na ñoom contrat démb muy ka nga xam ne ni moom moo di Issa Pouye ma nga xam ne mu dëkk sa caaroy ak ka nga xam ne moom mooy Aline numéro 2 ma dëkk fa nga xam ne nii moom moo di ca Géejawaay mel ne kat daal comme ba moom démb nag taxawal nañ ko yëglikaay bi jàpp ne Issa Pouye ginnaaw juróom-ñettet yoo xam ne gëj na ko si làmb ji daal daal démb nag jox nañ ko contrat wala boog jox nañ ko comba ka ko def nag du kenn ku dul ka nga xam ne nii moom moo di Gaston Mbengue sunu làmb moo xëy tey ñëw di nu xamal lu mel ni ki noonu moo tax nag Issa Pouye jamono jamono encaissé la nga xam ne nii moom moo di ab combam am wala avance am daal xëy na di dànkaafu ka nga xam ne nii moom moo di Alioune Seye numéro 2 wala boog ca jotaay ba la ko dànkaafoo ne na ko daal li am ba des daal jàppal na yow Alioune Seye numéro 2 day loo ci mën a dégg moom danaa la jàngal naka la ñuy bëree maanaam bëre moom danaa la ko jàngalaat bu baax a baax pour nga xam ne yow mënoo bëre Alioune Seye 2 tontu ko comme olof ne na tontu du foro ne ko daal li am ba des daal yow day bu ne di ma jàngal bëre waaye soit bi nga def yow daal yow Issa Pouye jàppal ne du soit bu baax te nekkul tamit soit boo xam ne moom mooy gën ci yow ñeneen ñoo xam ne ba tey Gaston Mbengue moo leen soit bëreele woon leen fi ci maanaam 4 avril bii nu génne mu ndoxoon ci diggante ka nga xam ne moo doon Lac de Guiers 2 ak ka nga xam ne moo doon Eumeu Sène yëglikaay bi nag ginnaaw ba combat ba jeexee te Lac yóbbu ndam la ci ay avertissement yoo xam ne gagné na ko ca Eumeu Sène maanaam Eumeu loola neexu ko woon moo ko waa taay singa ba tax ñu bindoon ab recours yóbbu ko fa nga xam ne moo doon ca CNG doon ñaxtu maanaam daal bëgg ñu kase verdict ba waa CNG nag lank nañu daal danañ ko Eumeu Sène l'arbitre ba waxoon ca géew ba moom la ñuy continuer ay di wax maanaam yow demal nga toog te noppalu ka nga xam ne nii moo di Lac de Guiers 2 dalaa gagné yëglikaay bi di sunu làmb ba tey moo xëy tey ñëw di ko wax keneen koo xam ne moom tamit joxoon nañ ko contrat mu bëre ba ba ñu ko mooy Safi Dieng ka ko joxoon moo doon Sidi Jaxaje ca Thiès Ousmane Gandigal daan ko moom Safi nag xëy na de nee daal maanaam du tax mu bàyyi de nee na damay gën a takkuwaat parce que nag sama place laa bëgg a jëlaat ki nga xam ne nii moom place bëgg naa ñëw jël ko mooy Pape mbay mu nga nag ca Espagne ma ngeen xam ca école de Mor daal nee na fi nii maanaam maanaam ñu ngay dox digganteem ak Zarko ak ka nga xam ne nii moom moo di Mame Balla numéro de kii moom la mu doon dox sotti na ba fi mu nekk nii nag la mu bëgg ba wax ko maanaam mooy nekk numéro un ci wàllum écrit ci Sénégal muy Amadou Koti Diop ma nga xam ne nag léegi moom mooy coach su Fass Ndakaaru nee daal seen yéene ak seen bëgg-bëgg daal nee li ci nekk mooy lenn maanaam nekk numéro un ci wàllum écrit fi nga xam ne nii moom moo di ci Sénégal rawatina Ndakaaru Njaay ka nga xam ne nii moom la mu doon dox matal na ko ba amum datam ca tuus ya moom moo di Jamaïcain ma nga xam ne nii nag moom mooy jiite jam production xale ba daal la mu def leer na diggante leket ak France daal soo bëggee dégg dëgg moom jàppal léegi am na ab dat yëglikaay bi xëy na ñu xamal na daal nee na le 13 juin daal la ñu fas yéene tëgg boobu combat yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey dina ko wax mel ni ki nag patron jam production moom fi mu nekk nii mu nga ca réewum Gàmbi maanaam di waajal boppam ba tey ci tuus yooyu yëglikaay bi mu ngi nu xëy di xamal daal boo bëggee dëgg-dëgg lig ni ko laay daal ginnaaw koor gi mu ngi waajal lu rëy rëy loo xam ne ni daal fasu sax yéene nag yem ca Modou Lo ak ka nga xam ne ni moom moo di Ama Baldé yëglikaay bi moo xëy wax nu ko ba tey ca tuus bu nu continuer li yëglikaay bi ba tey dañuy dem wala boog ñu jóge fa dem fa nga xam ne moo di record record lam nu xëy xamal daal nee na ñii day ah fi mu nekk nii njàqaare ndax waru leen a yoot wala mu leen di yot muy ñetti mbër yoo xam ne daal maanaam fi mu nekk nii seeni mbir mu ngi bëgg a takk suuf muy Gris Bordeaux Eumeu Sène B52 ak LAC 2 yëglikaay ba moo xëy ñëw dina ko wax la ko waral nag nee na soo bëggee dëgg-dëgg maanaam VIP fi mu nekk nii maanaam na mu taxawee ak jaxasoo ga ca am maanaam ak xale yay ñëw moo tax yëglikaay bi tiital leen nee na bu dee moo doog Balla moom daa mel ni ñoom ñaar soo bëggee dégg-dëgg sowe nañu waaye ñii day soo bëggee dégg-dëgg daal record daal daa mel ni daal ak njàqaare akum tiitaange la gis ci seen mbir wala di des ci li nga xam ne nii moom moo di seen siitu carrière li am ba des nag mooy loo ci mën a dégg xulle moom faw ñu wax ko te mooy lu leer Gaston Mbengue def na loo xam ne démb day bëri na ñoo xam ne dañuy dund làmb kontaan nañ ci ndax ku ne xam na Issa Pouye la kaymaa da caaro yi gëjës na koo gis ci làmb ji mu gëj a ñëw ci làmb ji kon démb bu Gaston jëlee contrat jox ko ko boole ko alin Alioune kon daal tamit tey nag faw mu ne Gaston Mbengue a jaaraama ndax olof a ko wax ku gis nen ne na nangi te ku def lu rëy nag des laa war a wax lu rëy te Gaston fi mu nekk nii nag ne mu taxawee ci làmb ji am na solo de xulle macha allah suñu papa Gaston Mbengue am na solo dafa baax nag euh, xale yi nga xam ne dañoo nekk euh, ci suuf a ñu leen di tàllal loxo di leen gisaat ci biir arène bi ba tax na rek macha allah décision boobu nga xam ne nag jël na ko am na solo lool Babacar comme ni ñu koy defee saa su nekk euh, journal suñu làmb lañ koy daal di njëkkeetee rek ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 ñu gis ko ne nag mu ci moom ci les traces de Tyson maanaam daal fi mu nekk nii daal tànk yi nga xam ne moom la na taxawoon ci làmb ji ci tànk yooyu la nekk. ba tey rek ki nga xam ne moo di Aziz Ndiaye muy naan il nous faut beaucoup d' argent Tyson les titres ne m'intéressent pas moom Tyson loolu la wax moom itam bi mu xëyee. waaw sa sa veut dire que loolu soo ko déggee yëpp bu dee si garçon boobu nga laal la wala ma tëjee ko. Mhm. ah euh, olof a koy wax nit ki su defee dara da nga wax ne ko def nga dara. Mhm. rawatina ko def loo xam ne lu am solo la. Mhm. parce que li tax ñu wax ko mooy dinañ ci ñëw mooy le cas de Issa Pouye moom. waaye fi ñuy njëkkee mooy euh, comme loolu nga ubbee ah te journal ko tey muy. Tyson mhm. wala Balla bu nekk ci tànku Tyson mhm. loolu mu defe naa ne du bett kenn ndax Balla Gaye 2 mhm. yàgg nañu ko gis wala muy wax ne Tyson moom mooy idolam ba bi muy bëreek laataa muy bëreek moom ba bi mu bëreek moom ba pare ba tey nii loolu la continuer di wax kon soppiwul ay waxam maanaam mooy sama idole moo may daf may conseil daf may nangam Tyson nag ku mu nekk sa idole yaakaar naa ne ah di nga xool sa comportement xool nooy doxe xool itam sóoraale ëllëg parce que Tyson ku ne xam na ne diiraa mu ñëwee si biir làmb nekk di def carrière am ba ni carrière am jeex ku ne xam na ne royukaay la. parce que dama lay wax leen si Tyson nga jàpp ko te Sénégal mën nañ ko seede. ma su ma dégg nit wax Tyson ci télé wala ci presse écrite. wala si internet wala fenn wax boo xam ne bu débordé la Tyson tontu ko. masul am. wax dëgg yàlla man mësuma ko gis tout le temps da nga koy gis mu ngi toog si koyam jàpp njàmburam mhm. te itam nekkul xam ne ku difficile la mhm. man mi di wax ak yow téléphone dama koy jot. Mhm. boo koy dina waxtaan ak yow jàppal bàyyil. ko mhm. nit ku mel noonu nag roy ko defe naa dara newu ci. tey su ko Balla day roy ba tax tey ñu gis Balla tamit carrière mhm. mu toll fii mu toll parce dama naan Balla li mu defoon ci carrière am def lu toll noonu ci ginnaaw bu mhm. bëggee dégg-dëgg li mu def ci ginnaaw dootu ko def ci kanam mhm. parce tax mooy fi mu jaar ba tey ay at la dégg na fi roi des arènes daan na fi mbër mu ne kon defe naa li des nag xëy na mooy jéem ko rafetal rafetal gi nag ba amee ndam da caa bokk liggéeye koy maye pour entraîner ah am na ñoo xam ne mën nañ laa bañ a yërëm te am na ñoo xam ne bu keroog dinañ la rey mm-hmm, xam naa moo tax nag Aziz jàpp ne mm-hmm. kon fi nekk nii ñoom mm-hmm. xaalis bu bëri lañ soxla moo tax ñuy signé ay contrat pour di bëre loolu tamit am na solo te xam nga Al moom xam nga commerçant la moom jaaykat la moom xam na ñu wute xaalis te moom moo yore Balla Gaye di bëre am na solo <laughs> ba tey rek ñu naan Balla Gaye de Euh, am na trois combats yoo xam ne daal moom ak Gaston fi mu nekk nii waxtaanee nañ ko. waaw mooy dëggal li ñuy doon wax ah. Mhm. ça veut dire que kon ñoom fi mu nekk nii ñoom. Mhm. bëgg nañ Balla li des ci siitu carrière am. Mhm. mu am ci ay ndam waaye bëgg nañ mu am ci xaalis. parce que tamit après làmb. te loolu day jeex liggéey boo gis am na retraite. te retraite tamit am loo toogaale da caa baax. waaw te tey seen defe naa ne mu ne mooy idolam wala mi ñu ne mi ñu ne moom la tonki toppi tànkam. Ah, daal. mu ngi sant daa mel ni Mouhamed dëgg la macha <laughs> allah voilà comme euh, ni mu ko tijjee léegi rek ci revue bi ki nga xam ne moo di euh, Gaston Mbengue daal di ubbilaat bunt yi ki nga xam ne moo di euh, Issa yi macha allah après huit ans huit ans d' absence mu daal di ko tëggal combat ci digganteem ak Alioune Seye waa muy loo xam ne vraiment man de rafetlu naa ko. Mhm. parce li tax mooy tamit. am lu baax boo ko gisee da nga rafet rafetlu parce que tamit Gaston def na loo xam ne mhm. man maa ngi ko ci jërëjëfal parce que li tax mooy Issa Pouye mii dafa bokk si làmb mhm. toog at yu bëri bëriwul mhm. yaa ngi dégg yaakaar na ne du ma ne Gaston ko mujj tëgg waaye bokk na si ñu ko mujj tëgg yaa ngi dégg kon defe naa tamit bu ñëwaatee tey mu toog huit ba tey woon ko parce que mën naa ne fàtte la parce que boo xoolee làmb yombatu koon pour man combat tey Gaston meeg ñëw jox ko Alioune Seye koo xam ne nii Issa Pouye ko jiitu ci làmb yaa ngi dégg nekk parce que Issa Pouye bëri na ak Lac de Guiers de mhm. kon defe naa Gaston Mbengue vraiment mhm. def na loo xam ne am na solo trop muy huit ans yoo xam ne absenté na ko mhm. tey mu joxaat ko Issa Pouye mu jox ko Alioune Seye Alioune Seye tamit nekk koo xam ne wax dëgg yàlla ñi mu maasee loon si làmb jiitu nañ ko waaye taxul mu wane lenn loo xam ne ni mbirum kuy ñànki la wala nangam mu ngi toog di xaar ba biñ ko fiy joxee ñaq jariñ mu war a bëri ak moom mm-hmm. far làmb yeggul mm-hmm. tey mu jot ci Isa Pouye defe naa daal ñoom ñaar ñi mm-hmm. wokkutu bu daje gestu la mais Gaston tamit il faut ñu ne ko jërëjëf def am na solo trop ci suñu journal bi passé rek ñu ko doon waxtaanee Isa Pouye absence am bi waaye ba tey rek ki nga xam ne moo di Eumeu Sène recours ba mu doon euh, wut ci Lac de Guiers 2 foofu ca CNG dafa mel ni daal mujjul sotti <laughs> ah sottiwul de parce que seen seen seen daal bañ nañu recours ba mhm. waaw ne nañ ko ba joxewoon ca géew ba mhm. maanaam loolu la dëggal ça veut kon lak gagné na ko par décision arbitrale mala ci ay avertissement mhm. parce que bi làmb ji jeex am trois quatre avertissement la am lak am trois kon nag bu jeexee si noonu bu temps bi jeexee mhm. lak mooy yóbbu ndam li effectivement loolu la CNC bi dëggal kon ëmma daal ñu koy wa encouragé encore mhm. rek parce que sport noonu la tëddee gi ah. tamit bu ñu la àttee a jooytu na ko fa nag ñooñu ne moom nañu mhm, ba pare jeex mm, di defar war yokku ah. <laughs> ah. nag euh, moom nag mi ngi affiché ay ambition am nee daal dafa bëgg a jëlaat place ci arène bi place am ci moom lay des rek parce que mhm. lamb ji moom fi nekk nii mhm. comme jox nañ ko fi combat fan yële mu daanu ah na utaat combat rek su amee bu ko promoteur joxaatee combat si jaxatee ko tëggat mhm. bu soobee yàlla bu dee dafa bëgg a dikkaat moom ci moom lay dépendre rek maanaam ci ay entraînement ak li mu bëgg rek parce que làmb jaa ngi mhm. waaw am solo ki nga xam ne moo di euh, Pape Mbaye 2 moom nekk euh, moom nag nee na depuis France ñu ngi euh, démarché li nga xam ne moo di combat am contre Zarco ak ki nga xam ne moo di Mamballa 2. xam naa koor gi jàpp na mais na la Pape Mbaye 2 depuis Espagne lañ nga naan nga naan France. depuis Espagne moo ne moom lañu bind de. depuis Espagne kon da ngaa woor koor gee la sonal léegi sama bëri ñoo commencé lëndëm. <laughs> doy na waar. loolu <laughs> la waaw Pape Mbaye di mbër boo xam ne nii mhm. vraiment ku mën a bëre macha allah nekk mhm. champion bu mag a mag. yaakaar naa ne ah moom ak Zarko wala moom ak Mame ko mhm. buñ ko démarché tamit xel nangu na quoi ah, parce que mm-hmm. loolu lépp ay làmb su ma nee nekk parce que mm-hmm. Pape Mbaye am na lu mu mën si làmb ji dëgg yàlla depuis ay mm-hmm. at depuis booba nag ay weer mu ngi Espagne ñu ngi koy gis euh, euh, li nga xam ne moo di ay programme mu mel nii rek euh, combat France ak Leket Bara c'est pour le 13 juin insha allah ñu koy ñaanal yàlla mu réussir quoi ah, jamaïcain parce que bëri dem rek ñu ngi jokkoo mu ngi Gambie defe naa ne xam naa ne ci loolu la nekkoon pour di ko encouragé la parce que mhm. xale la ay atam mayu ko sax lii muy def mu di ko def mais mhm. bon am ambition ak ña am bëgg-bëgg moo tax ak mhm. bëgg service réewam parce que jamono kee maa moom li ma lay wax rek dañoo yàgg ak suñu xarit bi génn àddina bëri ki dem ñu koy wax xarañ bu Medina Xaadim Balla Xaadim Dia Badara bu xarañ Ousmane Laay bu Faas Eliman bu Tafatin maa Samba Dieye Sora Mali loolu lu yàgg-yàgg la mhm. kon moom tam mu nekkoon ci suñu biir xale ñu mag ko mais chaque jour ko jëfee rek mu ngi wane boppam mhm. di am lu mu bëgg kon defe naa tey bu demee yegg ci niveau bi mhm. maa ñaan yàlla rek jamaïcain tey fi ñu gis Gaston gis fa Luc Nicolaï ak ñoom suñ mudu ñaar yàlla nañ gis fu ko raw jamaïcain parce que tamit vraiment dafa bokk ci man jamaïcain waaw noonu la de petit à petit l'oiseau fait son nid te ndànk ndànk mooy ah, jàpp ko la ci ñaay loolu la olof <laughs> wax dëgg la ki nga xam ne moo di Luc Nicolaï moom nag ay ay yu rëy daal ci après Ramadan bi xam naa yooyu ay surprise la. waaw mën na nekk da xam nga comme li ñuy wax rek moom tamit daa nekk promoteur boo xam ne am na mbirutu làmb parce que dafa bëri lu innové wu ci làmb en tant que promoteur moom moo ko def. wax dëgg mm-hmm. yàlla comme li ma wax sànq rek nit ki moom waxal guddi noppam mën a dawam mhm. yàqul dara parce que loolu la yàlla dogal mhm. lig tamit vraiment nekk na koo xam na ci côté boobu mhm. macha allah kon bu ñu bu ñu bu ñu xalaatee ay surprise après ramadan ah, ku yeboo xaar ko <laughs> xam naa ne moom du ñàkk dinañ ko gis làmb de <laughs> nar a jax rek waaw loolu la yàlla dogal làmb a jax rek dëgg la recomposition chez les VIP Balla et Modou Lo sauvé souci pour Gris Eumeu ak ki nga xam ne moo di B50 ak la de Guiers 2 waaw su su su ma ko déggee mooy xay na ay njaaxaar wala ay jàppal bàyyi mm-hmm. lu leerul mm-hmm. ay soucis ñee nag seen i mbir moom daa mel ni ñoom sauvé nañ leen muy mu doog kii parce que mm-hmm. xëy na fi yëglikaay bi fi ma jàpp ne moom la Abou Ndour di waxee mooy xam nga tey bàll nañ signé trois contrats mu ngi war a bëri Bombardier war a bëri Boy Niang mu des ko beneen ak Gaston te xëy na ñàkkul yeneen yoo xam ne buñ ko ko tegaloon tax sax tey mu signé ko kon moom sauvé nañ Modou Lo tamit ku ne xam ne ne mu ngi jongante ji combat moom ko Ama Baldé mhm. mais ñett ñeent ñi des nag Bombardier Bombardier sax am na combat mhm. waaye dama naan ñoom muy Gris Bombardier mhm. Eumeu Sène ñoom fi nekk nii du ma ko tudde sujet xam nga lu ma koy tuddee at moo leen di dab parce que làmb tamit. Mhm. day dem ba foofu parce que fi ñoom ñett ñi retraite lañ gën a jege ka des ci làmb. dëgg la dëgg la dégg. Mhm. parce que Bombardier tey bu fekkente ne âge ñu a retraité maanaam muy 45 mhm. manuma jàpp ne suuf war na fa am li tax mooy moom eggagul ci at yi ñuy yegg donte euh, mu yàgg na si làmb mais yeggagul fi ñuy yegg. loolu nag ah gis-gis la mais bon. ak li am ba des daal mooy que ni sport moom ak loo ci mën a dégg lu mu mënoon si àddina sax ami mhm. bés day ñëw rek mu arrêté waaw xam naa nag fi mu nekk ni dañoo yegg ci seen dernier virage su carrière ñoom mhm. ñett ñooñ muy Eumeu mhm. Gris ak B52 foofu nag boo fa yeggee dafay amay xale yoo xam ne faw ñu ñëw bu dee Balla ak Modou la nag seeni at bokk na ci kon lu leen sauvé ak seeni résultat parce tamit ñoom yeggaguñ ci tournal bi nga xam ne nii mhm. fi la ñett ñooñu yegg mhm. waaw am na solo boobu la xibaar bu mujj record ñoo ko fësaloon ñu daal di fa jaara ndar keppee ko looy tàggatoote waaw di la nuyu ah di nuyu sa waa ji Cheikh Bass mhm. yëg nga canta bi sama waa ji canta ba nee na day non day joxe ay ndogu ay ndogu wax na ko fii démb wax na la ko de bind na ko fii ay waay loolu de yëgu nee na day joxe ay man na xam Cheikh Bass maa ngi koy bëggee bu baax a baax ah di taalibe borom Touba maa ngi koy nuyu di nuyu soxnaam mhm. di ko baax a baax di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy koomante ci revue bi agida bi gars ah gars waaw kooku moom waa ji ma yab la rek. waaw kooku moom dafa maa yab a yab rek quoi na démb sax gis naa mu naan Babacar jàngal sañse. mais yow la yow laa xaar nga jël ma sañse. mu ne yow nga jàng sañse. waaw loolu de la wax Ami loo koy tontu yow la ngay wax de ndikete yow rek. bu la ñoom Modou Tawa kii Omar Tawa jàppee. waaw ñoom Rimka. waaw moom mu naan nga jàng sañse. waaw ah na xool li muy ak ñoom Modou Kara borom man ca marché ci leen gis nga moom moo jaar fii tey ci zone bi zone noire kon maa ngi xam naa daa jiw maa ngi koy nuyu di nuyu képp kuy commenter vidéo yi ah, ak ñi ñuy suivre amuñu seen fay parce que jël seen xaalis di mm-hmm. jënd ay kii di ñu seetaan ak yooyu mm-hmm. kon encore une fois di leen balu àq mais di nuyu tamit koo xam ne suma papa mm-hmm. di suma père parce daf may woo souvent di ma teg ci tracé. Mhm. muy Bécaye Mbaye. maa ngi koy wax jërëjëf Père Bécaye. Mhm. kontaan naa ci yow. Mhm. yàlla na la yàlla jàmmal. barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam defal ko bépp doomu ma sa fay moo xam ne mag na la. loo defagul mu yëkkati téléphone am la naan la defal nii waxal. nii waxal ça veut dire que kon Père Bécaye. te loolu yaakaar naa ne yemale ko ci man kese. yaa ngi dégg mais nag ku ne. maanaam ndawalu guddi moom mhm. ah ku daj da nga daj naa man Père noonu laa ko jàppe mhm. mais man moom daj naa parce que souvent ñu déggante mhm. téléphone te bi ci mujjee moo ma woo téléphone te mhm. may teg ci yoon mhm. kon père lay ñaanal di ñaanal waa Bantamba TV yëpp mhm. yàlla na fi ngeen bëgg a yegg fa am yow itam di la jaajëfal di moom mi nekkoon si cadrage bi ak montage bi di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ci biir groupe Equivox di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm barke bi sallallahu alayhi la mag di jëriñ ci réew voilà mbokk téléspectateurs yi fi la ñuy daal yem tey nag ci seen journal de l'arène di leen